الحمد للحق المبين من كونه ليبي على الكتاب المستبين ما جميع النعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima subhaana sil mulk wal malakut subhaana sil izzati wal jabarut subhaana alxayu alladi laa yamuut subuuxun xudduusun rabbul malaikati wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi nu leen nuyoo te siyaare leen noo ngi leen di jaajëfal bu baax ci topp gi ngeen nuy topp seen mbokkum taalibe Cheikh njaay gànna am yéene dikkaat ak yenn ci sunu beneen tomb ci jataayu sëriñ bi waxi sëriñ bi ci fonk ay waxam ak bañ koo waxal lu mu waxul innama yaftari alkaziba allazina laa yuminuuna bi ayaati illahi wa ulaika humul kaasibuun sadaqallahu alazim sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaran lahu nee na waxal waaju baax lu mu waxul léegi la xew waaye bu njëkkoon ku ko defaa bu ñu xëyee dañuy fekk mu nekk golo bi yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama walbaraka ñëwee la ko yàlla tabaraka wa terale teraanga ju tollu ni duutul defat loolu waaye sëriñ bi nee na ba léegi ku ko def atte boobu mu ngi daw ci moom wér na sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaran lahu nee na des na diggante bu gàtt ku mën a wax ne nee naa te muy dëgg lu ñu nangu mu koy waxe fi suuf waaye fu kawe la koy waxe siiw na lii li muy xamle mooy lu àdduna di gën di dox dara jàmm moom sëriñ bi di gën di feeñ di gën di yëkkatuku moo tax sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu di wax ca bayit wa darajati taalu wa laysat tanxafid wa man naxa minal wara xaf di xufit lii mu mujj a wax dañuy xamal ne ku koy yëkkati moom sëriñ bi day yëkkatuku wallahu aalam sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaralahu nee na fekke samay wax jar na sol dalli weñ di ko doxe ba mu jeex siiw na sëriñ bi ay waxam lépp faydu la ku koy dégg day leeral ab xolom di sax ci moom nga xam ne faw faw mu koy jariñ wallahu aalam moo tax sëriñ Tuuba qaada lahu allahu maxtaara lahu di wax ni wajal kitaabati wa xawli indaka xaqal yaqiini furxatan li jundika wallahu alam sëriñ tuuba qaada lahu allahu maxtaara lahu nee na dama wax saa borom tabaraka wa taala ne ko mbooloo mi ma topp di wuyoo samaw sant di taasu ci sama barke dama bëggoon nga wax ma li nga gën a bëgg ma sant leen ko ñu la koy defal mu ne tekk ba ma ne yàlla bu doon kuy fàtte fàtte na ko ma dellu waxaat ko ko mu ne ti tekk ma dellu waxaat ko ko mu ne ma fu ñu toll di la waxtaane fu ñu toll di la waxtaane fu ñu lay waxtaanee yow Ahmadou Bamba danaa leen fa tiim ak waa mi xiwal di leen ko sotti di leen ko sotti di leen ko sotti ba keroog ñuy bàyyi ma door a siwet siw na lii lañuy xamal sopp gu ko boroomam sopp te sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu nee na saa boroom subhaanahu wa xamal na ma ne man la gën a sopp ci kudul man sama boroom subhaanahu wa xamal na ma ne moom la gën a sopp moom sëriñ bi ci kudul moom moo tax muy wax bayit wii allamani bi ni ahabbu ilayhi min xayri wa man yuhibbu sëriñ bi itam bu nu xoolee ay mbindam dañuy gis ne day waxtaane boppam ngir topp ndigal loolu moo tax sëriñ tuuba qaadalahu llahu maxtaralahu di wax ni safirtu wa bil alaa'i inni muxaddisun بكوني قديم المصطفى وهو يحفظ والله أعلم murit bi di wax ci sëriñ bi war nay fexe góor góorgóorlu ci wax lu ko wóor te ànd aki teggin yu mat tey teewlu loolu mooy waral dana jariñu jariñ keneen loolu mooy waral dana jariñu jariñ keneen wallahu aalam mbokk yi noo ngi leen di jox dig daje ci sunu beneen tomb sunu beneen waxtaan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu hada